da ngay dee dañ lay gas dañ lay suul kenn du la fa fekk bu ñu lay audité li ma gën a métti mooy kilifa yi war a wax te duñu wax Sénégal boo xam ne ñun dañoo am ay mag Sénégal boo xam ne ku nekk ku baax mi ngi fi te tey dara bu am dalee ci diine ji ñëppay noppi kenn du wax boo ci waxee ñu ne la ndax dangaa bëgg ñu jàpp la tëj ragal kaso mag ñu baax ñëpp jaar nañ ci kaso yi ñi am daraja yépp dañoo jaar ci kaso yi mais nag tey.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 njaboot gi nekk di def lu leen neex ñi di tox yàmba ñi di naan sàngara di tëddee jigéen ñi di wax lu bon di def lu bon nga ni patt fa nga ni patt waaw ban diine nga représenté ban diine mais du islaam ki jiite woon ñëpp gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam lu mu jiite woon moo cay jiitu sallallahu alayhi wa sallam buñ naxante nañ leen di waxante dëgg Sénégal dañoo jël diine ji def ko folklore yaakaar ne àdduna danga fiy nekk te doo fi jóge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 diine mooy jàngal nit ñi woo leen leeralal fi nga leeralal leen fi nga xam ne foofu la ñu war a jaar loolu mooy diine sama yaay neen na diine mooy saawa su leer ba ku ci jaar yegg fu leer mais naxante bi dafa war a doy nag Sénégal li may wax li fi am yëpp dañu ñun ñëpp ñu koy xumtoo këri diine yi fi nekk ku nekk waroon nga woo sa ñi nga xam ne say taaliba lañ wax ak ñoom jàngal julit nan lay demee ci diineem bu ñu jiñee sa mbokkum julit loo xam ne defu ko islam lan la wax yonent bi nee na bu ñu ñëwee ci sa yow ci yow ne sa mbokku julit def na nangam dee ko ko gàntul ba mu nekk juróom-ñaar fukki yoon mais toog sa kër ñuy taqal imaam yi di wax lu bon climatiseur di la ubb soxna yu wër la nga ne yow diina ji nga fi toogal ban diina nga fi toogal doo génn wax doo génn wax ak nit yi ne yow yaa ngi bokk ci benn kër bu ñëpp yaakaar ak njub fu xeesal gën a kiyee yaa koy jënd fu mèche gën a kiyee yaa koy jënd ñi ñàkk xel di la xool soxna yi diw moom pourtant waaye bu leen ñu rey xanaa gisoo diw ñoom muuru wuñu jiite mbooloo ay mbooloo wër la ay ñoo xam ne ñëpp ay borom grâce lañ ñu laa gën a yërëm ci àdduna nga toog di wax ak ñoom ay heure doo leen wax yàlla nee na yonent bi nee na mais lii ba te lii yëpp ci àdduna rek la nag wallaahi dafay jeex ma ne lu lekk yi neex neex lu michu yi neex neex lu ginaar yi neex neex wallaahi dañuy dee dañ ko fi bàyyi mais lii nag bakkañ tamit ñu ko war a wax duñ ko wax wala buñ koy wax dañ koy xumtoo kenn di ko dégg pour lan te ñun ñu ne ay jullit lañu topp àdduna ba topp ay nit gëm loo leen diine boo xam ne nekkul ñu topp la fekk àdduna kese lañ la ànd ak yow àdduna kese lañu ànd ak yow am na ñoo xam ne seenu ànd àndu àdduna kese la wa ah mbooloo moo dajale amul yàlla leen amul yonent bi nee la neexee fecc ba doya mais lii ban diine la léeg nga ne léeg ñu tuddee benn mbir ne lii yonent bi lañ ko tuddee léeg nga def ñoo tàkku saanu Seydina Mohamed bu yonent bi ñëwoon du fa teg tànkam sallallahu alayhi wa sallam tàkku saanu duriyanka yi kay xeesal ba weex woo ay nit damay def tàkku saanu yonent bi buñ naxante demal def di la yonent bi sant ba pare bala ngaa def tàkku saanu yonent bi xeesal nga muuru woo woo ab ay jàngkat nag ay jàngkat ñu xëccoo micro ndax dërëm ndax ñaar dërëm ndax cinq mille ndax dix mille xaraf yu normal sax mënuñu koo wax ne dañuy tagg yoon sallallahu alayhi wa sallam àdduna rek la nag ah àdduna kese lañ topp diine dafa leer nañ li yonent bi jàngale dafa leer nañ nañ leen bàyyi ku leen nit ñi ñoo ñoo war a yeewu ñii naxaate ñu xamal leen naxaate bi nag doy na